bi rek euh, Pape Sané di coalition yi nga xamante ñu ngi juddoo ci jamono ji euh, ñiy dem ci présidentielle gis nañu euh, bu Diomaye Bassirou Diomaye fay coalition boo xamante ni mën nañ ko tuddee XXL am ay candidats yoo xamante ni renoncé nañu à leur candidature bien que seen candidature jàlloon na ci conseil constitutionnel ñu ni dañuy dem jàppale ji Bassirou Diomaye fay ak ñeneen ñoo xamante ni aussi dañ leen recalé woon ñu ci bëri ñoo xamante ni am nañ tur ñu ngi ci boobule coalition Euh, au même moment beneen coalition bi di benn bokk yaakaar yaakaar na euh, ba tey amul benn renfort boo xamante ni renfort de taille la. non mais euh, xam nga Benno ñoom il se targue d'avoir trois cent et poussière d'être une coalition moom trois cent et poussière membres donc je crois que <laughs> waruñu soxla ku ku yokk ci ñoom ah. théoriquement théoriquement waaw waruñu soxla ku yokk ci ñoom Euh, s'il y a trois cent quatre-vingts ou cent soixante-dix partis au Sénégal yéen ngeen ne trois cent yi yéen nañu ànd ndax mouvement yi donc soxlootu leen ko euh, waaw mais en tout cas ci présidentielle bi ñu gis actuellement nii nii nii nii euh, li ñuy les premiers constats mooy bi ñu valider la candidature de Bassirou Diomaye ba tey Bassirou Diomaye Faye ba tey on voit benn une large adhésion de d'anciens candidats de candidats recalés Euh, justement euh, à sa cause bon euh, foo également tamit dans ce dans cette adhésion tamit xool faire la partie la la part des choses mooy les candidats yi nga xam ne ils sont issus de de formation yi nga xam ne structurée am doole et tout nga xam ne mën nañu yaakaar doole ci ñoom ak ñi nga xam ne aussi tamit sama genre yi la ñu. ay candidat wu cabine téléphonique <laughs> mais de toute façon euh, li ñuy xaar en tout cas euh, ce qui est attendu objectivement euh, ma ko doon wax mooy que on va vers une élection qui n'est rien d'autre qu'un référendum c'est-à-dire c'est un oui ou un non tey si on considère ni que Diomaye est l'un des principaux représentants du camp du non mooy maanaam la rupture mooy l'antisystème et tout mais wax fa dëgg yàlla lii ma gisagum comme candidat sax yu dem di ko soutenir dafa néew moi j'attends je m'attends justement à ce que plus que ça plus que ça laa la wax dem fekk fa fekk ko fa bu dee cest à bu dee ces gens sont dans la logique de référendum pas dans une logique de calcul politique de politique politicienne bu ñu nekkee ci logique référendum mooy maanaam li fi nekk daf fiy jógee li may séntu mooy que fii ak le 25. euh, il y aura l'une des plus fortes coalitions autour de euh, Bassirou Diomaye Faye mais mais finalement euh, est-ce que Pape Sané du Macky Sall moom moo euh, jàppale euh, Bassirou Diomaye Faye parce que ñu bëri ci recalé quand même peut-être bu ñu leen recalé woon dañuy dem présenter seen candidature est-ce que du Macky Sall bon bu ñu nee Macky Sall est-ce que du le fait que ñu recalé yooyu candidature moo tax ba ñoom ñu def seen regroupement bi ñu mën a tuddee regroupement bu naturel. ah mais c'est, c'est une logique bu dee xam nga ñoom ñëpp li ñu doon woote mooy ñoom ñëpp pratiquement ils avaient le même discours peut-être avec des consonances diverses mais ñoom ñëpp ñi ci bëri ñi ma ci xam boog nga xam ne dañ leen dañ leen dañ leen dañ leen dañ leen recalé la logique aurait voulu di dama ne la logique aurait voulu que tey jii qui se retrouve derrière Bassirou Diomaye maintenant qui est à l'origine de ce de ce de ces retrouvailles mais c'est justement euh, ceux-là qui ont été à l'origine de leur euh, recalement mu doon Macky Sall wala le conseil constitutionnel mais une chose est sûre encore Pape mooy que si historiquement les discours yi ñu doon tenir euh, dañ koy jël méngale ko maanaam en faire quelque chose de concret mooy dama yaakaar ne que coalition bi war a wër Bassirou autour de Bassirou Diomaye Faye il faut s'attendre à ce soit l'une des plus grandes coalitions de l'opposition question bi laa lay posé euh, tey jii euh, Bassirou Diomaye ak euh, coalition XXL bi au même moment benn Bokk Yaakaar ak kandidaawam di Amadou Ba ba tey gisaguñu benn renfort de taille est-ce que nit ñi ñu benn choix bu naturel mooy que ñu jële fi li fi nekk en attendant peut-être bu ñuy xoolaat peut-être beneen élection ñu defaat ci beneen choix. bon yaakaar naa lu lu logique la lu cohérent la que. la candidature de Bassirou Diomaye Faye euh, nekk euh, beaucoup plus force d'attraction mhm. que euh, la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que aussi faut pas oublier benn Benno Bokk Yaakaar ñu ngi fii depuis 2012 donc ils ont fait ñaata 12 ans 12 mhm. ans de 12 ans de règne te dans la vie des dans la vie des organismes que ce soit organisme politique wala wala nit dafa am benn moment boo xam ne boo ci yeggee daanaka li ngay li ngay yëg du dootul bëri li ngay gën a li ngay wàcc mooy mooy mooy mooy mooy la ñuy gën a di di seetlu alors que euh, tout le monde sait que euh, aussi am nañu tuuti benn kii boo xam ne dañu ils aiment ils aiment le le ce qui est nouveau c'est ça s'est toujours comme ça c'était le, le cas avec Abdoulaye Wade c'était le cas avec euh, Macky Sall ce fut le cas avec Ousmane Sonko et c'est le cas aujourd'hui avec Bassirou Diomaye Faye parce que nit ñi souvent dañuy bëgg euh, dañu bëgg lu bees Euh, maintenant comme Pape l'a dit aussi euh, il faut voir aussi les gens les gens yi nga xam ne aussi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñëw quoi parce que ku mel ne euh, Mary Teuw Niane aujourd'hui même bu fekkee ne par exemple euh, bëriwul ay nit parce que su parce que bu bëri woon nit peut-être dina il aurait suffisamment de parrainage pour jàll. Mmh. Euh, mais c'est un c'est une prise symbolique. Mmh. parce que c'est pas n'importe qui c'est un professeur d'université c'est un ancien recteur c'est un ancien ministre de yooyu. et puis qui était aussi vraiment dans la garde rapprochée de Macky Sall. Mhm. donc euh, kooku benn la. Mhm. keneen kii aussi Aïda Mbodj la. Aïda Mbodj vraiment elle est rompue à la tâche politique. Mhm. mi ngi fi depuis temps parti socialiste ñëpp gis taxawaay bi mu amoon ci temps wu PDS ak ak euh, bi ñu nekk opposition bi avec le même PDS ba ni mu jógee foofu xeex bi mu doon xeex foofu ba ni mu jógee foofu créer créer son parti. donc là c'est le cas de comment dire de euh, ak ñeneen ñi nga xam ne. logique pour logique vraiment comme c'est des yoo xam ne ñoom jàppoon nañ ne ñoom dañoo war a xeex li fi nekk pour mu jóge fi te jàpp nañ ne Amadou Ba voté Amadou Ba mooy voté Macky Sall wala voté Amadou Ba mooy voté pour un cinquième non pour un troisième mandat de de de de, de donc il faut que que ce système dégage s'ils sont logiques avec lui-même avec avec avec eux-mêmes en tout ils doivent se relier à la candidature de Bassirou Diomaye Faye donc loolu lu lu lu xel mën a nangu la bon j'ai vu que quelqu'un aussi comme Babacar Diop oui euh, vu que moom je crois il a relié la candidature de Idriss Seck alors que moom Babacar Diop il a été élu sous la bannière de Yewwi donc notamment de Ousmane Sonko tout le monde se rappelle bi Ousmane Sonko defi woon foofu à Thiès pendant les élections locales les élections locales ba. mais y a eu un divorce euh, ci législative man euh, je pense que il y a Euh, parce que euh, le divorce euh, y en avec Karim entre Karim Wade et et aujourd'hui à l'Assemblée. mais divorce politique moom ça ne veut rien parce que divorce moom mën am nga dans l'islam divorce trois la mhm. bu basé trois rek il faut nga xaar ba ba soxna si keneen jëlaat ko ba leen kii mais divorce politique moom mën a dem ba cinq ba six ba sept fois mhm. mais quel soit les divergences entre Euh, kii euh, comment il Babacar Diop. oui ak euh, Ousmane Sonko wala avec la coalition Yewwi. oui je crois que euh, le bon sens aurait été plus d'accord que moom mu lie la candidature de Bassirou Diomaye Faye. au nom de certains principes. qui les lié bu fekkee ne ces principes là sont sont toujours de rigueur en deux que mu relier la candidature d'Idriss Seck parce que Idriss Seck aussi euh, je contre lui mais Idriss Seck aussi euh, je crois que ñi mu gën a jege. est-ce que du coalition régionaliste. waaw waaw loolu aussi mën na nekk bon mu nekk affaire affaire affaire de de de de comment comment ils les de lan. Hmm. de de de de de waa mais mais mais mais mais mais mais mais toutes les façons man je le vois je voyais plus Babacar Diop. Mm -hmm. de de de de de Bassirou Diomaye Faye. oui que de euh, que qu'au de de Idriss Seck. maintenant euh, comment dire la raison politique moom elle a des raisons que que peut-être la raison ignore. Hmm. ñoom ñoo xam seen seen i kii comment nañuy fóotee seen i seen i seen i kii. seen yëre yu tilim ak yooyu. Mhm. mais euh, toujours est-il que euh, le fait Bassir euh, la candidature de Bassir fay Faye attire plus. man loolu yaakaar naa lu lu lu lu lu lu war a mën a nekk la. Mhm. te lu mës nekk la euh, en dans le passé chaque fois qu'il y a un nouvel homme. une nouvelle candidature wala un kenn euh, quelqu'un qui vient avec de nouvelles idées. souvent day nekk kii Idrissa Seck amoon na ko Macky Sall amoon na ko Abdoulaye Wade amoon na ko. donc euh, que Amadou Ba bi nga xam ne aujourd'hui tous les gens qui sont contre contre contre te moom ba léegi il tend pas à démontrer le contraire qui disent que voter pour Amadou Ba c'est voter le troisième mandat de Macky Sall. d'accord mm-hmm. d'accord d'accord euh, ñu taxaw un peu ci Ba moomu la parce que ba tey maa ngi koy wax amul euh, renfort euh, de taille mais ñi nga xamante ni aussi dañ ko dañu taxaw affiché que ni moom nañuy soutenir dafa mel ni soutien de façade la président Macky Sall sax bu ma juumul jamono yi génn na. Euh, doon wax euh, ci genre euh, yooyu les soutiens que ni effectivement soxlawuñu nga taxaw rek ni da ngay soutenir Amadou Ba mais nga voilà nga yëngatu bu baax a baax ba ñu xam ni que soutien boobu noonu soutien bu dëggu la ci yow. bu ñu jëlee Abdoulaye Daouda Diallo def na fi conférence de presse ni que day soutenir Amadou Ba ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ay kàngam nañ ci biir APR mais ba tey ji gisatoo leen fenn même seen communication sax kàngam yi ko doon yor mi ñoom Seydou Gueye ñoom ministre Kassé ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp. ñëpp tey jii gisatoo leen ba ci Abdou Latif Coulibaly ñoom ñëpp gisatoo leen est-ce quelque part Amadou Ba nekkul benn choix boo xamante ne dañ ko jël ba noppi euh, di ko galgal ci ginnaaw. mais euh, Pape. Oui. juste pour répondre à la question. Oui. mais président Macky Sall ci boppam ban acte la posé pour wane ne que effectivement euh, Amadou Ba c'est son candidat c'est le candidat euh, de Benno Bokk Yaakaar. Hmm. à part le fait que mu wax ko. Hmm. Euh, ba daal di bon moo ci tane parmi les autres ah. oui waaw moo ci tane hmm. maa ko tànn parce que moo ci tane. Mhm. Euh, ban acte la posé cest à man je dis que vraiment Amadou Ba il est très courageux. Mhm. entre nous parce que man j'aurais été à la place de Amadou Ba wala ñi koy conseiller. Mhm. mooy que Amadou na si départiru carrément de Benno Bokk Yaakaar et de l'APR parce que président ban dama jàpp ni ko jàppale wuñ ko mooy jàppale de façade boobu. alors imaginez un peu ce que Amadou Ba fait depuis qu'il est candidat. à l'intérieur du Sénégal. ay ouvrage yu eggul yu eggul rek. lay dem di inauguré yu eggul. Mhm. te bu inauguré ba noppi président wëlbatiku ak inauguré. wëlbatiku defar ko ba mu jekk dem inauguré. jaar si ginnaaw waaw waaw. Mhm. c'est-à-dire fu mu ne nii yu eggul rek lay inauguré. képp képp képp keppaar gi. non mais c'est non képp képp keppaar gi. et puis ni nga ko waxee tey la task force républicaine boobu ñu doon wax. oui mais on les voit plus sur le plateau. Mhm. man Seydou Gueye xam nga dafa génn réew mi xam fu mu ngi fi Pape Malick Ndour anamu Abdoulaye Coulibaly. Euh, seen waajooju nga xam ne moo yore seen kase moom ba mu génnee ca France 24 ASPT la nu mu tuddi maawo mm. maawo xaw ma Sewu Diouf waaw Sewu Diouf kooku anamu c'est-à-dire on les voit plus c'est-à-dire ces gens ont disparu mm-hmm. Abdou Karim Fofana anañu mm-hmm. ñoo ñëpp ils ont ils se sont tapis dans l'ombre comme s'il y avait une consigne quelque part maam Mbaye Niang yi gën di xëpp euh, suuf ci cexe waaw de l'autre côté dafa mel ne sax dafa mel ne sax maam maam Mbaye Niang peut-être il a été beaucoup plus courageux courageux mais il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui et qui n'osent pas le dire à visage découvert mais li mu wax la gars yi xalaat. te ñemewuñu ko wax <laughs> ñemewuñu ko wax. Mhm. mooy que tey jii ñoom ñëpp dafa mel ni à travers acte yi nga ne moom la président posé autour de la candidature de Amadou Ba. Mhm. dañ ne ah comme président dafa xaw a joxe bopp. rocci Lamine. ah ñun tam nañ taxaw di seetaan. Mhm. mais moo tax ma ne. Amadou Ba moo war a jël son courage à deux mains. te yaakaar naa ni jël na son courage à deux parce que gis naa sur sa page Facebook depuis hier <laughs> lépp luy couleur à perdre dina ko donc ça veut dire que Euh, il est en train de comprendre que s'il ne fait pas attention, ce n'est pas la machine électorale de Benno qui va l'accompagner. Mm-hmm, mm-hmm. C'est-à-dire il faut que mu compter sur ses forces. Mm-hmm. man dama jàpp nag c'est ma conviction ah. ni que Amadou. dañ ko président daf ko tànn. parce que voilà euh, il fallait mu tànn ko rek. moo c'est un candidat par défaut. waaw. moo fi sës moo fi sës ah wolof de nee na yaa fi sës moo fi tax a moo fi tax falu du son choix de cœur <laughs> du Amadou kan la hmm. non ça moom c'est que non son choix de cœur c'est entre les trois là hmm. euh, Aly Ngouille Mamboy ak euh, Mamboy kii Mouhamed ñooñu moom nee naa la xoolal ala kulli yàlla mhm. on retrouvera le candidat du président entre l'un de ces trois d'accord d'accord di ko jaajëfal bu baax a baax moom euh, Pape Sané nga tëj joxe sa kàddu gu mujj waaw may euh, lay jaajëfal encore une fa oui bon di la ndokkeel euh, di la ñaanal rek. Pape Sané bu ma ndokkeel bu ma ñaanal ci rajo bi ba nga ma waxee ndokkeel da nga ma waroon fekk mbooro ndokkeel ma continuel mais booy man wax naa la li ma dal de. waaw yow moom am nga am nga gànt Ibrahima amul woon gànt continuel